en ah, passant ca la <laughs> jëm de kii. bàyyi ma nekk sa ginnaaw rek sa ginnaaw laa nekkee sa tànk rek laay topp. ak bëgg ay sipooram. <laughs> sipooru kër gi bëgg nga leen de. macha allah passant ñu dem fan tribune. aywa ah, moom nga moom la xale bu jigéen bi wax. moo jiitu. acca waaw kay waa da ngi nii nag tuxu na dem fële ca Wuhan. ah ci nag. wax na de wax na de. waa ni ko Coro Sarr wax na. dégg nga le pape soppi daal sa waay li mu xamle daal mooy fukki étudiant ak ñetti hmm. dañoo war a ñibbisi. dañoo war a ñibbisi. Mhm. Ablaye de lii la wax. Mhm. xaw ma nag. ba pare joxe na ay pexe. ah joxe na ay pexe de. joxe na ay pexe acca maam si dina ñu ñëw léegi ma wax la pexe yi mu joxe dégg nga benn 24 heures yéen kaay ñëw ak ñun ci suñu wàllu yorinu politique gi. ndeysaan Sénégal yërëm suñu bopp yow ab dialogue national buy am société civile ne day ñëw moom it bokk politiciens yi ne leen doo leen ñëw. loolu moo ñuy waaw xanaa dafa am lu ñuy nëbb ñoom seen biir. waaw te li ci gën a doy waar paasal xam mooy lan. Mm-hmm. opposition bi ci boppam sax ay complice lañ dañ ne pat. Hmm? opposition waroon kaas wax ne ne société civile bi ñëw ñooñ seen bopp ñoo ne pat noppi. financement parti politique yi moom deal rek moom mooy am deal rek diggante parti politique yi diggante opposition ak pouvoir deal deal deal. acca acca acca acca waaw kay. waa da nii nag bu doon la xew Chine inondation la dóor na plan Orsec. waaw Ablaye Wade nee na gis nga kër buy tàkk. Mm. kooku amul xaar. root ay si yoo rek woo sapeur pompier di xëpp. amul xaar kër guy tàkk. naan damay naan damay xalaat. naan damay xalaat. ñuy xalaat. kër gaa ngi tàkk. nga naan nañ leen réunion ñu xalaat nuñ ko fay. balaa ngaa pare mu nekk cendre. wallaay wallaay doomu taal. wallaay Ablaye nag lii la wax. nee na ni ñu leen rapatrier gaaw ci nu mu gën a gaawee. Mm-hmm. acamaam waaw kay diggante yi ak Wade ñoom ñaar rek coronavirus lañ <laughs> dëgg la mi ngi ne Maram ak Birane lañ du ñu ànd te duñ tàggali ko eh, je t'aime moi non plus wallaay daa mel ni ñoom ñaar lii lañu dund di papa ak doom la eh? papa ak doom mais est-ce que du pacte pacte bu président Wade defoon c'était pour président Macky Sall mën a am humilité ñëw ci moom laaj ko xalaatam xëy na mu moo ko jiitu ci xam-xam gi mënoon ko gindi. wallaay moo ko gën a ay bu dee moo ko ci jiitu it Macky romb na ko Macky mii li muy teg ci ay points politique rew na bàyyi mbii jàngal ko kii <laughs> Macky kenn du moom. waaye nag Ahmed Ahmed teg ay points dëkk bi gën a suux tamit du xel la. Ah. teg ay points. dëkk bi di gën a suux. waa dëkk bi day nag dëgg dëgg fa yàlla moom des naa dox xam-xam xam am xam-xam moom xam-xam moom Ahmed tubaab nee na intelligence dafa am ruse am mhm. te pexe du xam-xam mhm. non nekkul ay xam-xam côté gestion dëkk bi de xam-xamu politique kay tax sax man may wax mais xam-xam yorug dëkk moom doy na waar les écoles yéene kaay nañu les écoles yéene kaay la nee na Ablaye Wade dafa désavoué Macky les écoles parce que Macky moom li mu xam étudiants yi day ña nga fa ba tey maam Sidi les échos. Hmm. étudiants yi Ablaye Wade nag daal moom li mu xam le mooy ñetti fukki étudiants ak ñett yi dañoo war a ñëw ci ñum réew. waay dañoo war a ñibbisi. Mm-hmm. na ay plan yaa sànq ñaari mm-hmm. plan la teg. Mm-hmm. bu njëkk bi mooy. il faut ñu jël ay médecins au Sénégal. yóbbu leen Chine. c'est ñu lëkkaloo ak seeni i collègues chinois. ñi nga xam ne dara dalu leen. sa waay ñu indi leen immédiatement daar daar. ñi nga xam ne nag xel ñaaw na ci ñoom njort. ñu faj leen ci hôpitaux chinois yi ba ñu wér. Mhm. ñu indi leen. Ah. bu dee laaj na ñeneen ñoo xam ne tam dañ leen di quarantaine teg leen nee. Mhm. bu ñu leen di yóbbu nag nañ leen yóbbu ci dëkk boo xam ne day am jant comme Sénégal. fu am naaj. fu am naaj. dëkk bu am naaj. loolu loolu ñun xamuñu ko woon suñu góor gi moo ñu ko xamal. góor gi national moo ko xamle. Mhm. nga ne. ñu bàyyi leen ba ñu tane. Ah, doomu Sénégal yi kon dañ leen war a bàyyi foofu noonu. mais dara dalagu leen dara dalagu leen ah, attention non mais parce que dañ leen mettre en quarantaine te boobu ba léegi dégg euh, dégguñu ci ñu am virus wala dara. la Ahmed oui Ahmed. Ah. ah baax na baax na. dañ <laughs> leen mettre en man man dama xam nga damaa bëgg nit te chaque jour maa ngi ay nekk te mu à tout mun nañ ma wàll. moo tax looloo tax. enquête yéen a kaay ñëw ak si xale yii ñuy fitnaal nii ak di yegg seen kaw ak yooyu. Mm-hmm. seen pataaral gi lan moo ko waral docteur Ismaïla Sène nee na xale yi dañuy wax de. Hmm? à manière. Eh. adulte nag ñoom ñoo. même bu ñu noppee. même bu ñu noppee wax la. léegi ñi ñu dëkkal nag ñoo leen war a xool rek daal di toj xale yi li ñuy wax lan la. Mm-hmm. te ba pare gis nga affaire viol waratul nekk sujet tabu ci école wallaay dañ leen koy def. wallaay moo tax gis nga euh, Ami Sakho juriste nee na xale buy jàngi école wala muy dem daara. Mm. boo ne ko jugal mu commencé jooy. Mm-hmm. te parents bi ñu ci bàyyi xel ñu bëree bëri dañuy yaakaar ne yenn saa yi jooy yi bañ a jàng la wala tayal wala teel a yow mais am na ñoo xam ne la jooy ma nga seen ginnaaw rongañ wallaay mm-hmm. wallaay tension wallaay waaw <laughs> ah, kay mm-hmm. makee ngi nii nag tonton ngi nii waaw ah. <laughs> tonton moom ah? président sa xarit de la république <laughs> yu kay xarit la woon kii ñëwal moom daal kaaraangeewu biir réew mi wàllum criminalité gi am Sénégal gii Macky ngi ab loi bu bees de te man gars yi lu ñu indi loi loi du tax ñu dellu ginnaaw viol yaa ngi mel ni tulleeg male te pourtant ah, mais Ahmed démb démb Rosso xale trois ans moom lañ tës tey hmm? même pas quatre ans ñu takk ko ñetti ñetti at violé ko rek ligoté Ahmed du jamais vu kenn ma mais xale ñetti at tamit euh, xolu nit ñi fan lañ jëm day direct news nañu gis nga ëttu politique bi ci boobu la ñu war a assainir ko war a defaraat Sénégal mooy dëkk bi ëpp ay partie politique ci àdduna <laughs> waxul Afrique de adduna plus trois cent partis mooy li ñu doon expliqué démb rek ku bëgg Macky woo la dawal taxawal mouvement mbooloo mi commencé laa topp wala parti am sa récépissé def conférence de presse ne mouvance présidentielle exact commencé laal subvention plus de trois cent partis ci dëkk bi wil bigi wil am nga parti yow. kan ci. 300 yi ci nga bokk di. man. nga mu ne mu ne ci parti nga bokk ah amagoo parti. ñun suñ ñun suñ kii la Sénégal. non amet man yow foog ma people la ndax am na ay photo yu ñu ma yónnee yow ak ay kilifa nag dama la ko bëggoon wax. man kan. yow ak ay kilifa. est-ce que du ci ah, seen jotaay. man nag non du seen jotaay nag. man nag kilifa. Mm-hmm. Mm-hmm. man nag man nag man nag man nag maay kilifa nag. waaw. non yow ah, ak ay ah, kilifa kilifa ay kilifa lay àndal. waaye déglu ma ma people sama bopp. non waaw déglu ah, ko mu people nag gis naa la nga ànd ak ñoom de. waaye waaye déglu mhm. ma. ma maa fi nuyu nag ñeenti président nag ci benn bëccëg. <laughs> waaw d'accord. Olusegun Obasanjo. Mhm. John Kufuor président Macky ak Ablaye Wade. Mhm. waaw. maa def lii man maa def lii ca Paris la France ca club de Paris ba déggoo ma de. déet man fan yi gis naa la daal yónnee nañ ma photo yi daal. yéen a ngi waajal parti de yow ku turam commencé M. yow mbaa du photo yi kii. <laughs> du loolu de ci régime bi nguur gi yooyu de turam commencé M santam commencé G amul problème. ah bon waaw. kan Malick Gakou. Malick yaa ko wax de man xaw ma. Oh. mais xaritam bu yàgg la. xaritam bu yàgg la Malick eh, xaar leen Ahmed Aïdara mën na créer parti. dama lay people. c'est dama lay people. oui oui waaw. Malick Gakou dama ne il n'est même pas un ami c'est un père. yi léegi-léegi ñu naan journaliste yi amuñ droit am xarit politique. lo loolu moom wax tamit fenn. waaw mais koo xamanteel boobu noonu. yéen a ngi am ñeenti at mu yar la nag. <laughs> waaye waaye kaay ma wax la benn de man samay xarit nag dama leen di assumer de. gis nga ay ñoom Souleymane Jules Diop yi ay ñoom yaa xam mbay yow ngay ay dara karaara. waay allah ñu jublu rek ci. <laughs> ni ko Coro Sarr nag. <laughs> waaw waaw. Ablaye Wade kay ni ma mel ci moom. <laughs> loolu moom buy dagg ñii ne fi nii dinañu de waa nguur gi moom bu dee looloo leen di dagg dina dinañ dee. Ablaye moom a njëkk a dugal ci jet privé du caaxaan maa ko bëgg. laas ñëw ak ci coow pétrole pétrole bi xel tey na de. Hmm. trop xel tey na de. Sarr day taxaw rek société africaine dara finance. de cent milliards de bor. baax na ñëwal yow waaw kay voté nañ loi léegi naan ka sàndi plastique sàndi nee nañ jeex na ci même réew. Mhm. banque centrale nag mi ngi surveiller dossier Thione Seck ak Seydina Fall Bougazelli ci faux billets yi pour muy leer laa leen bëggoon a yeggee waaw kay Macky Sall la ngi nii nag risqué na de xaw ma nag ndax. Mhm. un pari risqué. Mhm. Petrosen la jël xaaj ko ba muy ñaar. ñii di jaay gaz. ñu nekk ca wàllu exploration léegi nag dana dox waa wala déet am na ay ngan di groupe pétrolier yoo xamante nii day jaar nañ fa lajj nañ Macky dana am ndam ak déet yàlla rek a xam lii la lob su ñëw tey jeex na wala. waaw l'état du Sénégal réew nguuru Sénégal gii nag moom coow li am ci affaire autoroute bi dinañ wàññi njëg li waa wala déet bind nañu lettre nag waa Eiffage bañ ko waree def daa yàgg bye bye. c'est grave. grave c'est grave. jaxasoo de. Ah. jaxasoo na de. mais nag comme tey la bésu mbëggeel euh, lan nga ñuy nga ñuy xistal tey. waaye mani yow nee naa la ñun ay Saint-Valentin yi nag ñun <laughs> Adja ñun dañ koo xawul a gëm ndax xam nga ñun trois cent soixante cinq jours yëpp dañuy bëggante. wallaay dëgg la. wala. wallaay. loolu ngeen loolu ngeen di dund waa mais kon nag. dafay am taarix waaw.